bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa ummatihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen suñu mbokk taalibe yi fi daje yëpp noo ngi leen di jottali nuyoo sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha noo fu yàggal te wéral ko te moom jëwriñam bi Cheikh Sidi Muxtaar li ñu dëgmal ci liggéeyal sëriñ Tuubaa lépp ñu àggale ko di njariñu jullit ñëpp di mbégteem jullit ñëpp daal lépp àgg ni ko sëriñ Tuubaa bëgge kon noo leen di jottali ak nuyoom ak i cantam nee xolam sedd na bu baax ci nii nga xam ne noon ngeen taxawa guddi gi dundale ko nii ci barab bu tedd bii bokk ci barab yi nga xam ne dañoo am xaas ci Sëriñ Tuubaa ku ne xam ne barab bii li fi sëñ bi nekk lim fi sax saxu ko ci beneen barab kon lii rekk day wane sëriñ bi li muy wax ne ab xaar ni la li wacci laahi du fi jóg mukk ak dundalam mooy law ba ba tey jii nit yàlla lum lum laal du tuddee mukk kon barab bi ni mu fonke woon gàmmu ak weeru koor rawatina guddi gii loolu tax na saa yegsee dundal googee mu ko daan dundal faw mbooloo taxaw dundal ko kon nag loolu ak cant la ñu suñu borom tawfee xale ci baaxu sëriñ bii Cheikh taxa nu àndandoo ci barab bu tedd bi dundalal ko sëriñ bi loolu tawféex ju rëy la kon noo noo war bu sëñ bi yëkkati ak cant noo war a njëkk sant waaye sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax mi ngi sant rawatina ñi nga xam ne ñoo doon yëkkati xasida yu tedd yi nga xam ne mooy lépp ginnaaw alxuraan mooy lépp ab murit te doy sëkk ci nit ki jariñoo lu jariñ jaam bi teeg ëllëg kon ñi ko doon yëkkati di njabootu boppam gi waaye rawatina ñi nga xam ne tey yàlla dafa dogal ñu ñëw teewe ko ànd ko ñoom muy daaray Hizbut Tarqiyyah ji nekk njaareem te sëriñ Ousmane Kane mi jiite ko tey dañoo ñëw dañoo ñëw teewe guddi gi ànd kook noonu sëñ bi yëg na loolu bu baax ñu ngi leen di xaasal cant gi bu baax waaye nee na nag waxaat na ma ko léegi sax nanga ma santal Lamine sëñ lemin juuf ak mbooloo mi mu àndal dañ leen santal bu baax xam na yëg naa li yëg naa seen taxawaay bu baax wax na ma ko fii ci biir jàkka ji yónneewaat ndaw léegi waxaat ma ko ndax ñoom kat yàlla def na at mu jot ñoom mbooleem loo xam ne moom lañ fiy jëfandikoo lépp ci seen taxawaay la ñoo koy taxawe saa yu at mi teroo dañ koy tàmbali waajal ñoog soxna yu ñu àndal ak mbokk taalibe yooyu fa ndakaaru di ci def seen doole ak seen xalaat ak seen kàttan ba bis bu ñëw ñu ñëwal seen bopp ñu taxaw lépp ànd ak soxna yi togg yeeg yépp sax ñoo koy defar kon ngeen xam ne kat mboolem nu ngeen di gis fii ñu koy jëfandikoo ñoom ñoo ñii ñoo ñoo ñoom yàlla dogal na seen taxawaay la sëriñ bi kon nee na yëg na loolu bu baax di leen ci sant bu baax a baax kon ni ma ko waxee rek kon li ci des nee na xanaa ab soññe rekk la ndax lii xas sëriñ bi la sëñ Tuubaa ku yàlla booleek moom benn cër bu baax jombatul teeg ëllëg kon sëñ bi ne nii rekk la sëriñ bi lu ñuy dund la kon nan ko dëgmal rekk wone na aw yoon ndax moom dafa joxoon lépp boroomam kon nag sëñ bi ne nun itam nan ko bàyyee sunu bopp sëñ bi daana wax ak noonu nee ku bàkk ku bàyyee sa bopp ak yàlla da am li nga bëgg te man mii mën naa ci seere sëñ Tuubaa sëñ bi daan a ko wax lu bari mag ñi na bàyyee seen bopp ak yàlla ku bàyyeel sa bopp ak yàlla danga am li nga bëgg te man mii mën naa ci seere ndaxam mën na ci seere kon sëñ bi leen nu doolee góor bu baax baña a xeeb leen lu baax waaye bañ naw dara la fi ne woon jógu fi sëriñ bi kat cër yu rëy yam daan yëkkati di ko jox di ko teg ci ay kàngamam tey la ko gën a am ku ko wut nañ ko nañ ko doon wute jaar fañ jaaroon am ko nañ ko daan amee yàlla na ci yàlla dimbali kon sëriñ bi santam bu baax mi ngi sant itam mbooleem ñi nga xam ne ñëw nañ teewe guddi gi ànd kook nun muy dëkkandoo yi ak ñu jóge fu sori waa dëkk bi ak ñu jóge feneen ñu yëg nañ seen taxawaay waaye loolu lépp dafa am luñ bëgg rek Sëñ Tuubaa rek la xañ xañtu kon nag dañ dañ koy dañ koy tëje ñaanu sëriñ bi Cheikh Mountakha day faral di ñaan li muy tëje ak ñaanam te ci la lépp nekk ndax sëñ sëriñ bi moo xam li gën ci noonu moo gën ci suñu bopp moo tax muy wax ne yàlla na sëñ Tuubaa gàttandu wammatal nu boppam ba fa ko tax jóg mooy fu mu jëm jëmeenu jërë ngeen jëf